amis internautes nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax ñu am mbégte kontaan te ñëw yéen seen euh, première chaîne de la banlieue di IM télé international média TV mbokk yi ñaata yéen seen émission top people comme ni ngeen ko xamee saa su nekk rek ah ànd seeg yéen ah ci euh, information people information li nga xamante ni moom mooy euh, ah actualité yi nga xamante ni moo laal lépp li nga xamante ni moo jëm ci people. tey nag mbokk yi comme ni nga nga xamee rek damay nuyu nag ñëpp ñi nga xamante ni ah dañuy bàyyi xel di ñi nga xamante ni dañuy suivre émission bii di Euh, top people ñu njëkkee ko nag euh, comme ni ngeen ko xamee nag muy suba incha allah euh, ci featuring bi nga xamante ni diggante Jeeba ak Dieyla ah mu nekk ñaari xale yoo xamante ni macha allah. xale yu confirmé lañ nekk xale yoo xamante ni vraiment ñi ngi seen yoon ñu def benn featuring boo xamante ni nag demee 18 heures incha allah mën ngeen ko xaar clip bi nag tudd li nga xamante ne moom mooy saay saay saay saay nekk son boo xamante ni gars yi maa ngi leen di wax demee incha allah ngeen xaar ko. bu ñu jógee foofu nag mbokk yi comme ni ngeen ko xamee nag ñëw nag si si ah, ah, ah, troupe théâtrale bi nga xamante ni moom mooy daaray Kocc ah daaray Kocc nag mbokk yi nga xamante ni kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal ah nga xamante ni troupe la bi nga xamante ni mën nañu wax ni ñoom ñoo inspiré tey bépp troupe bi nga xamante ni mi ngi fii si Sénégal ñuy rendre hommage ki nga xamante ni moom mooy ah Cheikh Diop ah Cheikh Tidiane Diop ñu koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana ah ndaxte bu ñu nee daaree Kocc rek na Cheikh Tidiane Diop ñu ñëw nag ak grand prix bi nga xamante ni ah moom lañ ko tuddee muy euh, grand prix euh, de daaree Kocc grand prix daaree Kocc boo xamante ni nag hommage bi ñu koy def ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Tidiane Diop mu nekk euh, le 27 incha allah. ah le 27 novembre may wax gaa yëpp nañ ko xaar ndaxte Daaray Kocc la damay wax troupe la boo xamante ni warul dee ndaxte bu ñu xoolee même les téléfilms yi ngeen di gis nii téléfilm boo gis du ñàkk am membre boo xamante benn membre daara ko ci boo xamante ni euh, jaar na ci kon vraiment ñu ngi leen di wax rek euh, gars yi ngeen xaar date boobu muy euh, le 27 novembre incha allah. bu ñu jógee foofu mbokk yi nag dina ñëw aussi nag ci événement bi nga xamante ni comme ni ngeen koy waxee rek xam nga Kër Massar ah dafa nekk département boo xamante ni culture daf fi am doole. Kër Massar dafa nekk département bi nga xamante ni ñoom dañuy dundal li nga xamante ne moom mooy aar ba tax na biennale bi nag gis ngeen suba incha allah. ah mi ngi amee fii ci Kër Massar bëri na ay artistes yu mag yoo xamante ni ah dinañ fi ñëw muy concert bu mag boo xamante ni ñu ngi koy organiser fii suba ci ah, terrain Yékini ah nekk événement boo xamante ni Kër Massar yëpp ñu ngi koy xaar ah, ñu ngi fay xaar ki nga xamante ne moom mooy ah, Momo Dieng ah ñu ngi fay xaar également ki nga xamante ne moom mooy ah ñu ngi fay xaar pas mal d' mais aussi tamit ak ki nga xamante ni moom mooy ah ak ki nga xamante ni moom mooy waaw bu so bu ñu xoolee Diela Momo Dieng ah non Jeba. ak Momo Dieng ak nga xamante moom mooy euh, Dip ah ñoo ñëpp dinañ fa jaar bëri na daal ay artistes yi nga xamante ni ah dinañ fa ñëw juste rek li nga xamante dañ koy wax mooy yu mel nii gars yi koy organiser surtout lu jëm si euh, si li nga xamante moom mooy ci banlieue bi da leen privilé privilégié waale ñi nga xamante ne ñoom ñooy jeune talent yi nga xamante ñoom ñoo fa nekk parce que à travers événement yu mel nii souvent dinañ mën a euh, génne ay talent yoo xamante ni peut euh, dina leen may mën a may chance pour ñu euh, pour leen gën a xam mais souvent da ngay gis gars yi souvent ni ñuy tànnee day nekk loo xamante ni lu ah, may mën a wax rek mooy gars yi souvent yi mel ni buy am da ngeen xool dugg ci maison de culture yi nga xamante ni ah, moom moo fi nekk su ko defee ñoom ñu mën leen proposer ay artistes yi nga xamante dina permettre événement bi gën a am doole mais xam nga tey bu ñu duggee ci banlieue bi andi yenn artistes yi te jëluñu souvent yenn artistes yi nga xam te ñoom ñoo dëkk si localité bi wala boog ñu jël quelques artistes rek day nekk loo xam souvent mën na ay divergence yooyu ñu bàyyi ci xel bu euh, bu baax a baax en tout mbokk yi du ñu fàtte aussi tamit ah du ñu fàtte aussi tamit mooy ah gis ngeen actuellement nii gis ngeen le le le premier ministre si déclaration bi nga xamante ni bu ñu doon def euh, yaar na euh, géejawaay muy surtout li nga xamante ni moom la ñuy waxtaan moom la bëgg a def fii ci ci ci ci région de Dakar muy wàllu culture Euh, surtout li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu téléfilm yi parce que dégg wax na ko muy série ak li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu musique ndaxte dégg ngeen euh, démb ki nga xamante ne moom mooy Ngone Ndour am na li nga xamante ni wax na ko mooy gis nañ ci élection yi nga xamante ne aussi tamit si lañ jógee ah seul Pastef moom mooy euh, moom mooy parti bi nga xamante ni ñoom ñoo fay BSDA pourquoi pas aussi tamit yeneen parti yi demuñu fay BSDA ndaxte aussi tamit artiste di liggéey ah sonn ak dugg studio nu mu méttee nga jël ay sonam ah dem campagne ko après yow doo fay artiste bi dara moo tax loolu il faut que aussi tamit gouvernement bi gën ci bàyyi xel gën ci liggéey ndaxte art way dafa metti musique dafa moom mooy ah, ah li nga mooy œuvre artiste bi rek après war nga mën a fay BCA pour artiste boobu mën a dundee li nga xamante ne moom mooy moom mooy ñàkkam surtout gars baax a baax si déclaration moom nga xamante ne Ndour Ngoné Ndour moom la def en tout cas gars yi li leen leen andiloon tey seen émission ah euh, top people bu leen fàtte ah, bi nga xamante ni suba incha allah moom mooy xew si diggante ki nga xamante ni moom mooy euh, Siteu ak euh, Modou en tout cas werante bi bari na ñii nag ñi ngi naan euh, li nga xamante ne moom mooy couronne bi jàmm gën la jëm ñii ne couronne bi day des foofu ca parcelle en tout cas loolu ci mën dégg rek dimanche incha allah lépp dina leer ñi ñuy wax nag ñi ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ah waxtu wi dañuy ah dañuy bàyyi xel du ma fàtte nag ah du ma fàtte tey émission bi ah Seynabou laa ko may Seynabou ah étudiante élite santé ah Touba tey moom laa ko may ak wa waa waa waa Kaolack yëpp ah waa may ah émission bi waa Touba <laughs> ndax Seynabou moom xam nga moom lakkal xaw maa ko lakkal en tout cas may jaajëfal ah, salaam mi nekkoon ci cadrage bi di jaajëfal Max ah, Amir ah, ñoom Jong ma 82 Ziga ñoom Karla équipe bu IM Télé bi yëpp dig daje suba incha allah jaajëf